Omar Ndiaye mii waruñoo réeroo sëñ Ibrahima Keita mii waruñoo réeroo te am na ay jataay yu ñu nos yoo xam ne du ñu tay du ñu sonn fu ñu ci war a gisee ñu ngi ci gisee di waxtaan waaye rek de luñ fa takkee luñ fa nosee na ko ñëpp di respecté ndax Nations Unies sax boo fa demee di nga gis lu ñu wax loo xam ne ñii dañ koy gisee nii ñeneen gisee ko neneen waaye bu ñu demee ba gis ci ak déggoo boobaa ña ca nosu ñëpp. dañ caa war a wéy fii duñ fi digle dara lu dul luy defar ma di leen waxaat ne leen benn kuréelu Hizbut Tarqiyyah bu ma bu ma tasaare wala dindi ko wala ne dama ko fi jëlee amut man aw ma sañ-sañ bu may def damaa bëgg rek gaa yi gën a booloo te dafa am luy rafetal suñu liggéey mooy kuréel yi bu ñu àndul tey jii man ñi may jox café am man mënumaa xàmmeti léegi ki ci nekkoon Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos ak ki ci nekkoon Hizbut Tarqiyyah Asalaam wala Dakar mënatuma xàmmee ci ñi nekk sécurité mënatuma koo xàmmee ci amenagement yi mënatuma koo xàmmee ci waañ wi mënatuma koo xàmmee feeñ fana des kuréel yi kon liggéey baa boobu yéene ko yor boole leen seen bopp am na nag gëm naa ko def ngeen ko màggal def ngeen ko gàmm ay dafa am leneen ndigal lu ma leen joxaat dama ne ña nekk Dakar dëkk Dakar nañu bañ a bokk ci kuréel bu mag bi ba noppi bu waa dakaar di répété ñu mel ni dañoo xeeb loolu ku ne da ngay amal njëriñ sa daara door a mën a bokk ci kuréel national ak international kon dooleel leen kuréel yi ci daara yi te taxawu leen ndaw yi ñi mën a jàng ba noppi nañ taxaw ñi gën a féete ndaw ñu mën ko ndax lii lu ñuy jàllale la ma Massamba bi muy sos kuréel ñëpp dañ ne woon kii li muy def mënta ne ñetti nit wala ñaari nit ñuy jàngandoo loolu nan mën a àndee xanaa duñu ànd mu boole leen ba ñu doon fukki nit yoo xam ne ku ca ku ca absenté rek ku ca manqué sëñ Tuubaa laajte la ñoom sëñ Mayib Guèye ah, ñoom sëñ Ibra Fall Bouba ah noonu defe naa bu ma jëloon si Abdoulaye Diop wala si Matar Diène da koy tari fukk lañu ñu woon waaye nag tey ji ñun.